voilà donc ail la ñu haché. tuuti soble huile d'olive ah ñu rôti ko comme ni ñu tàmm def mais pas diwlin bu sens quand même. Mhm. ñu awoon fekk jëndal nañu suñu viande haché suñu tomate pelée ak li nga xamante ne mooy haricot rouge moom nga incorporé léegi nii. donc lii mooy soos bi. nga agrémenté ko nag ak paprika. ak euh, cumin ba mu neex def sa xorom fi mu toll nii je pense que sauce bi moom ñu bëri mu ngi leen di jox loo à la bouche au préalable nag jot nañu baxal suñu Euh, spaghetti suñuy macaroni à part. li ñuy def rek mooy. kon nii la mujj joxe. boo ko baxalee day gën a si le papillon bi waaw. te nga xam ne nee nañ bu ñuy togg ñu commencé raxas. Ah. waaw ñooñu fu mu ne waxuma la raxas waaye pomp nañ seen i loxo ba la ñu toog. xam nga ñun dañuy bëgg ñamu soos. waaw bëgg nañu foog naa ni ñamu soos yamul rek ci euh, soble. loo xam ne da ngay jël diwlin def ci. Mm-hmm. ndax diwlin moom lu jar a moytu la. ndax bu duggee ci biir deret ah. faaw dana am ay yàq-yàq yu muy def uh-huh. maladie cardiovasculaire yi bari nañ fi mm-hmm. lii nga xam ni moom mooy hypertension tamit te xorom di ko joxe xorom bu bari mm-hmm. alors ñu utiliser ay euh, yoo xam ne saf-safal la yoo xam ne c'est deux cent fois plus salé que le sel foog naa ni sénégalais yi léegi war nañ ci yeewu mm-hmm. ña nga xam ni ñoom ñoo koy euh, defar sax duñ ko lekk alors ña nga xam ni <laughs> ñoo koy defar duñ ko lekk kon boog lu tax ñu koy lekkaloo suñu mbokk yi foog naa sel iodé bi baax na mais tuuti rek parce que ku am hypertension Euh, li ñuy wax xorom alors mën nga lekk sans sel. voilà am na sa benn xarit fan si bu ma woo mu ne ma neen Pape Amadou dama bëgg mu invité ma ñëw dendandoo ak moom. Mhm. mu jàngal ma togg. ah ne ko nag yaakaar naa ak ci ak bi nii ndax du jàng. waaw nee na dama bëgg daal na pare rek inscrit ci académie de cuisine bi. waaw nga jàngal ko togg. waaw Moustapha Diakhaté la tudd mu ngi dëkk Touba waaye pour l'instant mu ngi dakaar nee na daal dafa bëgg nga jàngal ko togg. foog naa ni ah, euh, boo xëyatee rek taalal rek yor sa biir ak sa na te bu école bi tijjee dina gën a. ñëw jàng si waaw. voilà alors donc euh, voilà un repas qu'on à Cheikh Niang et Mame Bousso qui nous suivent tous les jours. D'ailleurs, nombreux sont les téléspectateurs et qui nous suivent sur la 2STV. Amel nañ leen alors donc. Euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di. amee nañ leen njukkal bu baax a baax ndax bu fekkee da nga def dara sa kenn seetaan loolu am chance li ngay def ñëpp ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay woo ñu ngi lay félicité ñu ngi lay encouragé di leen ñaanal ñoom ñaan ñu ñu ngi leen koy delloo ñoom tamit di wax am fi ñu toll rek ndax ki kii def dara moom ki koy seetaan def la bëgg ñun foog naa suñu coono yëpp mooy suñu mbégte euh, téléspectateur la alors ñi nga xam ne itam ñi ngi si euh, kër diine yi parce que Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar te dañuy jiital suñu euh, sëriñ si nga xam ni euh, ñoom ñooy tax ba nga xam ni lépp lu ñuy def rek nekk koy yombal kii di na fi yàgg te wér kii di sëñ Mansour Mansour borom daara ji moom it ñoom itam euh, ak euh, fële ci Touba. waaw euh, sëñ Sidi Ahmed. waaw Mbacke waaw ak Boukounte Ndiassane. waaw ñooñu ñëpp daal dañu soxla âge bi nga xam ni foofu la ñu toll. Mm. ñu leen di defaral repas yi. alors donc fu ñu woowee rek foog naa danañ doxantu ba foofu waaw ah, foog naa ni war nañu mën a dem di nga dem euh, maa lay gunge waaw maa lay gunge xam nga yow yaay sama xarit kon foo teg tànk boo teggee ma teg sa beneen kon boog euh, euh, promesse moom waaw foog ñu ko foog ñu dem foog ñu dem dañuy dem nii jaar Yoff jaar dë Tiwaawoon dem Touba wëññeeku dem kaw Kaolack kon kooku soxna laa yi daañu ñëw seet si leen waaw hmm? ak soxna yi nga xam ne ñoo nekk ñëpp rek ñëpp rek ak Ndiassane tànk ak tànk mbagg ak mbagg ba foofu rek kon fi toll nii yaakaar naa léegi ñu yegg ci cappaandaw. cappaandaw bi noonu la ñuy wax. Mm. waaye na fi mu toll nii foog ñu bàyyi euh, sauce bi mu génn tuuti fer ndànk-ndànk ba ñu gis oh. légèrement. diw bi génn ndax loolu mooy njëriñu togg. dafa mel ni nga togg rossi ba mu neex. bàyyi ko mu te baaraloo. Mm. amul sens. ah nañ ko bàyyi tuuti mu foog naa nañ ko bàyyi suñu jongee suñu euh, euh, jigéen ñi nga xam ne ñu jonge lañu seen kër yi. déggal li alors ku mel na fili ak awa foog naa jaagar jaagari bi foog naa ni. yow xam nga mhm. suñu amee càmmiñ ju mel ni yow dina baax suñu amee càmmiñ mel ni yow ñu jaagal jaagal ndax yow yaa ñuy jox yi nga xamante ne moom la ñuy def mi ngi noonu donc on associe tous les mhm. euh, femmes de centenaire Gibraltar vraiment mhm. euh, parce que ñooñu euh, bu Pape Amadou commencé ak Sili ak aw foog naa ni bàyyi nañ li ñu doon def di xool jigéenu Sénégal yëpp alors donc on vous offre ce plat là merci beaucoup encore une fois ñu xaar ci kanam tuuti balaa ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy dégustation bi c'est important waaye fi mu toll nii foog ñu bàyyi euh, tous les ingrédients qu'on a eu à faire que ce soit le cumin mu dugg bu baax li nga xam ne mooy viande hachée bi euh, li nga ci dugal également comme haricot mu mën a yëbb ci li nga xamante ne mooy sauce bi bu ko defee bu ci nekk mën a accordé affaire de concordance la daal c'est important euh, waaw bii day génn dugg fii bii dugg yàbb fii génn fee c'est comme ça duggee nekk ascenseur boo xam ni au lieu muy yéeg day wàcc day wàcc wala léeg-léeg day yéeg tamit neexal neexal biir bi voilà merci beaucoup on se retrouve euh, tout à l'heure dans quelques minutes pour déguster cette bonne sauce comme vous le voyez en ce moment à l'écran spaghetti avec euh, spaghetti tout ce qui va avec en tout cas lu neex lu doy waar merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine euh, tout de suite on va accueillir euh, notre invité du jour en compagnie de Samba Ardoba ce sera pour la page culture c'était bien.